asalaamaaleykum mbokk yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivre ah. euh, tey nag ñu ngi fii ci arène nationale en route vers le 20 euh, novembre mu nekk journée petite production grand combat bi nekk ki nga xamante ne moom mooy Siteu bu Ngor ak Bébé Bismi mu nekk drapeau bastion euh, tey nag am ay quelques mbër yoo xamante ni ñu ngi fas yéene waxtaan ak ñoom bien vrai que nag jënd nañ ñi nga xamante ne ñoom ñooy grand combat yi. day am yenn face a face yoo xam te dañ ko am ak ñoom mais nag dañ leen di ñamale euh, kii ñu ñu taxawal nag moom mooy Bada 2 ah wala bële ki nga xam te ne moom mooy plateau xaw plateau dafa daw wala mais en tout cas dañ ko bàyyi ba nuyoo ngi lay ziar. waaw gannaaw ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur wax onze billahi mina seytaan rajim wax jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou ñu ziar ñëpp ñu fi nekk ñëpp waaw ñu ziar ñëpp di jaar tamit ñu fu mu jógee ginnaaw raay di nuyu ñëpp ak ñun àndal ko si mel ni Doudou Al Tigo ak Daouda waaw ñu leen ziar bu baax a baax a baax di leen màggal. tey sa adversaire ñëwul. waaw ñëwul moom moo tax duñu mën a wax si si moom lu bëri quoi. ndax ñu heure bu ñu convoqué woon ñëw nañ quoi amaana moom tam xamul lu ko téye waaye yàlla na doon jàmm rek xam nga. lan nga koy wax moom plateau xam nga ko. plateau waaw xam xamante nañ nii rek xam nii rek xamul làmb quoi. yee si la ñu am. non saf saf waaw fii dafa fekk na koo gën a saf après da ngay jéem a tapé combat bëri dë nga tapé combat nga xool ñan ñoo ci gën a bëri combat jànk yi combat yi safi hmm. waaw deux victoires la waaw deux victoires benn defet moom tamit de victoires benn defet ñaari xale la waaw kenn ki dafa war a dem kenn ki toog. loolu dugal ci moom. ñu dugal ci moom ah moom moom nga war a laaj ne lan moo ko dugal ci bara. plateau dafa xew de Ada Fass la yàlla na xale xale xale kii bi ci pencum Dakar yi la bokk. non euh, est-ce que du doon 2-0 ndax bu dee Ada Fass ne loolu nga wax Ada la bokk. waaw nag ci peeku on le lañu yaroo. waaw. moo tax ma ne kon nekk 2-0. Euh. waaye safam safam ñun gisuñu safam quoi. Ah. adversaire yi mu doon am adversaire bi mu am bokkul quoi. lan moo tax lan mooy différence bi. non da ngay tàppe combat yi xool combat yi métti yi da ngay xool combat yi rek yow boo boo tàppee xool. Hmm. yow di nga àtte sa bopp quoi sans ñu wax la waaw. yow si suñu lakkale si lakkale si combat Ama Diaye ñoom maa bëri lakkale waaw yàlla may ñu si ndam. lan wax. lu ma koy wax daal bëriwul lu ma koy wax moom bëriwul di ko wax ji bëri na torop mooy wax rek waaw wax ji bëri na mooy wax rek. Hmm. waaw ah, bis baa bis bu ñu jàmmaarlooy dina xam bu baax a baax wax gaa yi amul njëriñ si bés bi. dina wax moom day wax rek def vidéo di wax xam ma man wax dëgg yàlla man mu néew ma wax man jëf laa mu bu ñu duggee si biir man moom si biir géew bi dina ma respecté bu baax a baax a su bëree ma daan ko bu xeexee ma duma ko. amul lenn luñ si ragal ku ku dàq bëre. ku dàq bëre. maanaam moom ku ëpp ñaan. yàlla na la yàlla may ndam. di woo waa ginnaaw raay bu ñu bàyyeekoo tamit. di woo ñëpp nañ ñëw génn jàpp si. woo ñëpp ginnaaw raay bàyyiwuñ kenn waa ki naan bu ñu nekk waa marché Jibi ñoo siy jàpp bu baax am ma waa école huit sama goro ñoom bàcc sama yaay sama papa sama papa turandoo père Bada waaw ñun tam ñoo leen woo ñu ñëw jàpp si combat ndax combat bi ginnaaw raay sax moo ko soxla du newul ñun kese ginnaaw raay moo bëgg bés bi ndax am na fu ñu war a yóbbu bu baa a baax baax baax di woo ne ginnaaw raay ñëpp nañ génn open press bi ñu ngi koy waajal tamit bu baax a baax sama combat bi incha bàyyiwuñu kenn ñëpp la ñu woo ñu ñëw jàpp si combat bi bis baa am lu ñu war a wane toujours dañ koy wax di ko wax di ko waxaat ndax nit ki moom bu doon saako fu mu juddoo dañ koy sukk di ko raamal ay doomu mbër lañ te fu doomu mbëri àgg lañ bëgg a àgg loolu du ma ko nëbb di ko wax sam papa mooy peraare sama turandoo mooy per pada waaw kon suñu papa yi mbër lañ suñu turandoo bu ñu tuddee direct mbër la kon ñun moom xaalisu làmb dañ ko daanaka moom lañ géntee ngemb li dañ ko fekk si digg ëtt bi moo tax plateau mënu indilu ngeen ne ko nag nervi nervi nervi yu muy ut amul quoi gëstu yu muy def di lijjanti yooyu amul ñu loolu doxu si làmb ji làmb ji lan la man moom ñooy jàmmaarloo uh-huh. waaye ñu muy jox sama numéro man suma waaye ñu may woo amul njëriñ waaw man moom bu ñu jàmmaarloo dina xam loolu amul njariñ quoi waaw ñun ñun ñëpp. aca maa ngi lay ziar. Uh-huh. waaw. sama adversaire dafa daw ñëw ba fii mais dafa daw dafa ñëw tiit gis bu wow kong bi mu daw xam na ni mooy loolu bu fi taxawee dina dégg lu musul dégg musiba naaru laa lay dégg day xalaat day tiit <laughs> te man mooy loolu kuy tiit mooy du am si man dara mooy loolu nit balaa balaa ngay am si moom dara faaw ko te ñemewu ma allah bu bu la fee la fee incha dina gën a gis lu ko gën a jommal signature tiit Lopin bu ñëwee na ma nan la war a mel. ah moom si jaaxal comme lan la la gisee ah man moo ma jaaxal. man moo ma jaaxal xaw ma xaw ma la war tiit si man. ah moo ma jaaxal ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu yàlla moo ko tan moo ko wér. waaw même di ñaan gaa yëpp am yaa fekkee koog jam ñu ñëw mooy loolu defaral ko bagage ñibbi. waaw lan moo xew. ñii ñooy coow kay yàq nañ émission bi kii bi. wuy ma xama noo leen def ah ñii nañ dem ñibbi am. waaw jëlal ko Fane ma jëlal ñun ñu ngi liggéey la ñu li jëdewul dara bàyyi waaw di ko ñaanal di ko ñaanal wër euh, di ko di ñaanal sama boobu wér di ko ñaanal kulluhum képp kuy sama supporter rek maa lay ñaanal wér bu jour ba nga mun a ñëw teewee teewee jël bu nga war a daan sa sa na ba si ba bi mu daw waaw signature rek la ñëw daw kon xaw ma jour woon nan la war a mel. kon man ma ko bëgg a daan. saa bu ma ko buddi ba si kaw dóor ko si suuf. yow ñaata man bi mooy sama premier combat. waaw man maa moom maa moom parcelle maa doomu parcel waa lu wax parcelle yëpp nañ ñëw doole seen doom ma daan ko parcelle Kër Mbay Fall maa woo ñëpp waaw di ñaanal ñi nga xam ne dañ may bëgg daal di ñaanal Abdou Ndiaye mi nga xam ne moo yëkkati xaalisam fayal ma saal salle musculation di ñaanal sama papa di ñaanal sama yaay sama papa gis naa taxawaayam rafet na jàppale na ma si làmb ji bu baax a baax a baax waaw. ci nga hmm? diriger si yéen ñaar. maay diriger maay xale. maay ñëw maay duma maay bëre maay daan du ma fi yaakaar kenn gëm sama bopp xam lu ma liggéey. mais sa adversaire. sama dafa ñëw ba fii gis ma xam ne xale xale bi dafa liggéey xale mu mu gisoon keroog seen ak bu taw bi am na différence mu daw. xeeb tamit. xeeb mooy xeebee xeeb musiba wala su waay na waa dangar baay si biir bu ma xeebee xeeb musiba am na dama lay wax ni bu bu ma boo ma xeebee <laughs> xeeb sa musiba naa la duma naa daan. bu xeexee bu xeexee ma jaa su bëree ma yéene ko ba si kaw dóor si suuf. ñaata minute nga ko may. seconde nga may. seconde bu ñëwee bu ñëwul ma ñëw. <laughs> <laughs> waaw maa ngi woo ñëpp ñi nga xam ne dañ may si combat bi ku si mel ne ñoom Abdou Ndiaye waaw sama papa sama yaay ñoo Khady ak waa treizième bi huitième side bi dix-huit di passé yëpp un vingt six bu ma limee dama jum waa Kër Mbaye Fall campement Tivaouane Peulh waa di leen wax gaay yëpp ngeen ñëw jàppale seen doom waaw la vingt novembre incha allah ma jaaf Ama Jali Birama Thior tapet bi duma ko daan ko <laughs> incha <laughs> maa ngi delloo ziar. maa ngi si jàmm bu baax sant yàlla. sama adversaire ñëwul dafa daw. bébé déggool. bébé waaw dafa daw xam nga rek mooy loolu tapet la. boobu ba léegi gisuma ko mu génn gis gisuma mu def dara. naam ah uh-huh. waaw lëlu bi tamit jarul muy lëlu parce que tamit bu ñëwee tamit dama koy def li ma ko war a def rek lëlu bi teewul day jël lu mu war a jël. Uh-huh. fi ma jaar ak ñeneen ñi rek laa jaar moom waaw. Uh, nga waaw man daal maa ngi sant yàlla julli seen bi sant sama ñaari waajur bu baax di nuyu waa Cambérène bi ma jóge sama dëkk xeer bi maa ngi leen nuyu bu baax waa waa Daaru Daaru Jolof maa ngi leen di nuyu waa Waalo aussi di nuyu ñëpp daal képp kuy bëggee poids bu ndaw rek maa ngi lay bëggee waaw. looy sama adversaire xanaa di ko ñaanal jàmm rek di ko ñaanal jàmm na xaw ma lu ko téye ba ñëwul waaw di ko ñaanal jàmm bu bis ba rek mu fekkee lépp daal yàlla baax na. lu ma nar si bis bi. xanaa def mobilisation bu garaaw ànd ak samay mbokk def mobilisation bu garaaw. waaw Bébé Dégaule moom lu ma ko waxoon laa koy waxaat rek man xale laa man poids bu ndaw dama nekk sama yoon. du ma nekk du sangu benn xale bu ndaw di ma yënu te fëgguma la ñàmpe kanam. billaay wallaay. xam nga du dara du dara bébé dégool dara ñoo gën a tàng. bi mooy sama troisième combat. te dama war a wane sama bopp man xale laa. Mm. gaan man la doomu góor soog. papa bu ndaw dafa nekk si yoon xale ndaw waruñu ma téye man du man ak ñoom billaay wallaay. su bëree ma daan ko bu xeexee ma duma ko ba mu bëgg a dee. barki Serigne Bamba bébé dégool du man ak moom gaan maa ko dàq bëre soixante-dix mille fois billaay wallaay tallaay Bébé Dégolle làmb boolewuñ sax Bébé Dégolle daa sañ a xeex ak man ndaama loo xam nii la toll kooku daa sañ a jàkkaarloo man naan day bagaar kooku bu bu bagaaree waaw kooku du ko def. doo ko ma ah, da koy jàppal temps wala. Bébé Dégolle ndax dama koy jàppal temps kooku laa la wax moo tee ji jeex barki Serigne Bamba du ma yàgg ak moom li mu fi nekkul tax kooku di ragal kooku daf ma ñeme. barki Serigne Bamba ñeme wu ma yow Bébé Dégolle ñeme woo ma yow. la laa lay wax arbitre nga dëggal sa bopp kase taxaw loolu rek laa lay sant billaay wallaay bu dëggalee boppam taxaw lamb ji du mat minute ma daan ko lu ma entraîné xaju si moom xale la ñu may àndal di entraîné may teg ay coono yu métti ay góor soog ay franc parce que maam Seera Fall te loolu dama koy wane. maa ngi woo waa Cambérène bu baax wa Cambérène maa ngi leen di woo ñu jàpp si ak waa parcelle aussi maa ngi woo ñëpp di woo samay mbokk bu baax waa waalo maa ngi leen di woo ñu ñaanal ma jàppale ma sant ñëpp daal di woo Bamba Raay Raay borom jam ñaajo waaw na lamp yi tàq maa ngi koy woo. di woo Talla Nees maa woo mu jàpp si bolo gi grand yaaw Moussa Dioum maa woo di woo Papa ingénieur ñoom Ama Demba Kaara Mbaye Pa Jibi Goro Maam Xaar gars yi maa sama grand maa ngi leen di woo ñu taxawuma di sant sama boy yi may àndal ay ñoom Baye ñoom taala jee Aziz Goro Mbaxal Zo Am Njo Kara Ablaye Diagne sama booy yëpp daal maa ngi leen di sant bu baax di bëggee ñëpp nag xam nga vieux béton maa ngi koy sant waa Noofuwaar ñoom Maam Seex tos di ñaanal sama grand fii sa liiru fi sa liiru maa ngi koy ñaanal tan ak Valdo maa ngi leen di ñaanal tan bu baax yàlla defal leen jàmm yëkkati waat leen ba ñu mën a nekkaat seen activité bu baax. waaw maa ngi sant ñëpp nag di woo ñëpp ci le 20 bi maa ngi woo waa Cambérène yëpp le 20 di wax mobilisation bu garaaw waaw dawal ko dóor wi waaw waa convoi maa ngi leen di woo ñoom ñëpp sam booy 15 tam ñoom ñaari yaa Badaloo Rasoul Bouba Tidiane Ma Assane waaw booy boo atelier Baxatam maa ngi leen di woo ñoom Moutiam Malick. Alaaj Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi leen di woo gars maa woo ku ma limuro dama jum di sant sama kosu carré ak dev maa leen di sant bu baax waa paax ba tamit aussi noonu fi may liggéey noo fowaar maa ngi bëggee ñëpp daal ah, ah en production ma gis fi nag ñaari xale yoo xamante ne ay bopp xawma lu ne gis naa presque booy Malika ko fi indi xawma Zeb la xawma ak Douglas waaw mbër gaay yow mbër gaay tooy nga de mbër maa ngi lay ziar Douglas. maa ngi delloo ziar. auzu billahi mina shaytani ma sant yàlla di jullee ci ci sallallahu alayhi di sant suma ñaari waajur. di sant gaay yi di sant suma gaay yi ma àndal. di nuyu suma adversaire. di ko wax ni <laughs> maa ngi ñaanal jàmm bala fay. mbër xanaa da ngaa da ngaa man mm-hmm. man li may tiital man li may tiital amul ci àdduna. loolu gi barke man damaa bëri mbapat bëri naa fu ne. gis naa lu ne. jaar naa fu ne li déranger wu ma. Uh-huh. barke Seydina Mohamed billahi wallahi taala. man bi mooy sama deuxième combat ma ak Zende premier combat damaa daanu. Siteu bu anti moo ma daan. Siteu bu anti benn. ma daan. ok mais tey la page. Uh-huh. di xool di xool de l'avant quoi. parce que tey dañoo jóge ci loo xamante ne nii mooy loolu suñu waa koñ jàpp fukki loxo ak juróom-ñaar. ndax boo amee or. Hmm. da nga koy te man man or laa. Ah. waaw. xaar ba ñëw si yaa sant naa la. Oh, face face caméra. maa lay bëggee. ak jàmm. sant yàlla bu baax. am bëri combat bi commencé gul sax nga commencé. ginnaaw ma sant yàlla jul séeréer di sant samay ñaari waajur sant ñi nga xam ne ñoom laa àndal ñëpp. mu fi yaay bi yëpp. kii la muy ne du ma xool buy wax du ma xool. yaa Zenda nga tudd. noonu yow Zodé mooy lan. waaw noonu la ma sama papa tuddee. nga def ñaata combat. bi ma sama premier combat. moo taxit xam nga ki ngay bëre. ak ah, kii soxla ma koo xam sax. kii joueur nawetaan la Papa Kanté kii day xaar. ah joueur la. barke Sëñ Bamba joueur nawetaan la. biram bi gën xamul lu si nekk. barke Sëriñ Bamba Mbacke. man loo dugal ci moom si tabu anti moo ko daan mais ki sax na de. ki ko daan ki ko daan su ma ko jàppee sax du ma du ma nag moom. waaw wax yomb na. instant yii mën nañu dégg micro nga wax lu la neex man jour laa waaw dinaa ko wan ni man jour laa boo xam te ni man mbër yóbbulu ma dara nga lamb ni dañ ciy passe temps nii rek xam nga dañ ciy jàpp pour soulager mais du kii moo ñu téye. ah moom ciy jaar pour soulager. jaar ma lamb pour soulager. man maa xam ma jëm ragaluma fu ma jëm de ma jëm de ma xam ne mu fay fekk bu baax. te du kii moo may téye barki Serigne Fallou Mbacke. kii tubéy bi mu sol moo rëy. kii tubéy bi mu sol moo rëy. barki Serigne Bamba Mbacké kii tubéy na ngeen di bëre léegi non jarul ma koy yàqanti. bu dee bëre. billaay lazi laa ilaaha dina bëre ba dina xeex ba kii maa diriger. déggoo lu kii bu ma kii bu fekkoon kii bu fekkoon ne nu mu tuddati waaye ah dañuy teg tàngal màcc bu mu jëndee paquetu tàngal kii du màcc. kii barke alxuraani karim xam nga bolo bi ticket 200 lay def ah. ak sursi boo ko boolee mu ñaar muy 400. Ah. kii bu ñu si doon teg benn du si dëgg benn du dugg si biir fii. mais nee na bu ñu jëloon paquetu fii du dugg fii. paquetu tàngal leen doo kii kii kii bu ñuy gisante xooluma. soxla ma kaa xool xam nga kan lay xool. Ah. sa morom. doo moroom non non. lan moo tax a jël tolof tolof te dañoo bëgg xam boo nekkee ci boo jugee tolof tolof li da ngay xool bonbon kii bonbon la bonbon la ñu kii bu jour ah. kii du pousse du passe ah, du dóor kii du pousse yaa may du dóor fayu. wax yomb na bu ko neexee bu ko neexee moom bu ko neexee ba bu sible na taxaw xaar ma. tax muy taxaw di la xaar moom mooy mat. moom mooy mag man maa xale moom mooy mag man maa xale moom mooy mag maa xale barki alaaji Fallou Mbacke baat wi sible na taxaw xaar ma waaw man paa laa waaw man paa laa mais paa bi mooy jàpp mooy bëre Ah, mooy daan si kàttanu yàlla incha allah. waaw naka bu ñu wax ak man damay xool man su ma wax ak man dama koy xool man ñii nii yëpp ma leen de ñii ñii yëpp ma leen nii sax barki Serigne Mbamba Mbacke ñii yëpp ma kii bi kii biram bu rëy bii nii man. nee na moo lay diriger waxal ci loolu. barki ma diriger ma bàyyi làmb. nga ni kii ma diriger ma bàyyi làmb. war na Nabil Moussa dina bàyyi kon. kii du moom mooy téye fi muy toog moom bu koneem fu muy toog. moom koneem fu muy toog moom koneem fu muy ma dimanche fa laay nekk. kon da ngeen a xamante da koo xam. kii dama xam te xamuma. man soxla ma ndax kii du dara ci man kii du dara kii bu ma sampee sama tànk la vingt incha kii du ma ma ma sama tànk. kii man ban pied lay teg. man ça ne me concerne pas. ko kon. lijjantiwuma kii lijjantiwuma daraam. kii nee na bu sampee tàngam la ñuy nee na bu sampee tàngam du ma ko yëgati. Ah. na ñëw mu samp fii tàngam léegi léegi. léegi ñaata minute nga ko su ma daanee ma waj làmb ji nga ne kii su bëggee ñu ñu bëgg ñu def ko barkis nee naa ko bu mu ñëw bu mu ñëw nag toog mu xaar ma. mais ñaata minute nga ko may. man bu waay yabu ma leen man du ma xaar sax man du ma xaar nit bu yàlla sax du ma la xaar. nee du la xaar. xam nga ay minute la koy laaj. man 30 secondes laa ko may. 30 secondes la 30 non 30 secondes moom ay wax la nii rek. 30 secondes. 30 secondes ay wax la nii nii rek kii su ma neexee du ma 30 secondes bu moom bu mu ne 30 secondes. kii du pousse de passe du pousse de ma la xam. mais doo pousse doo passe loolu waxi la. du ma pousse du ma passe. ak ko gën ci Lofé. Lofé jour bi mooy 19. Ah, kii Fatma kii. Ah. kii daal lay xaas jaabur nawet daal moo si làmb. kon fay bor moo ko kii fay bor moo ko dugal si làmb. te du fii la koy fayee. ci moom laa koy fayee. bor bi. kii billa bu jour làmb ja barki Serigne Bamba Mbacké moom bu xefee moom ay suba doon du ñëw fu ñu toog. ci côté mobilisation bi. bi ma ñëw fi la laa ndaale. te am ñoo xam ne ñëwaguñ. dëgg la ñoo mooy sorxo sorxo nii sax moo tax ma bëgg a dem ñibbi nii. Ah. am ñoo xam ne teewaguñu. kii nii moom mooy téye. kii mënul mobiliser loo ma ko mobiliser. lan ngay wax say mbokk. di waaw di bëggee ñëpp di sant ñëpp ma fi waa ceddo bi yëpp barke sëñ Bamba di sant ñoom di bëggee ñëpp di bëggee ku si mel ni Boy Malika ay Iraay ay Lawin Mbay ñëpp di sant xat waaw di sant ñoom xadi bu ndaw ñoom Bindu Njaay ñoom xadi Géey xam nga di bëggee ñëpp di bëggee ma fi waa bi yëpp baa ma fi waa rond-point bi yëpp ñëpp li ay mbir la man doomu ceddo la man sama papa ceddo la li dara barke sëñ Bamba di bëggee ma fi waa ñëpp ay Xalil Mbay Gulo ala Acu di bëggee ñëpp di bëggee gaay yëpp di bëggee Boy Malika di bëggee Moussa ay Mame Faye sama zimo yi sama seexu yàlla yi bëggee ñëpp maa bëggee sama seexu yàlla yi bu baax barki Serigne Babou Mbacké gaay yi ñoom Baba Zil gaay dañuy jàpp si làmb ji ku si mel ni Boy Malika bii nii Boy Malika lépp la may defaral barki Serigne Babou Mbacké billah bu xeexee barki Serigne Babou Mbacké bu ma dóor ko mu su bëree su bëree ma daan ko na bu xeexee mu dugg waaw yomb na quoi. mais dafa mel ni kii de man fu mu toll nii man wax dafa maa warul. ndax sama waa koñ dama leen yoral bor. kii bu waxee du jëf. te kii bu waxee du jëf. incha allah. sant. man du sant. xam nga lafee sant. ok waaw ko. man li ma koy wax bariwul. maa ko dàqu bëre fuuf. maa ko dàqu bëre fukki junni maa ko dàq xeex. te bu la fayee incha allah dinaa ko wan ni maa ko dàq bëre maa ko ëpp doole maa ko ëpp supporter. Serigne Bamba Mbacke barki alxuraan fii laa ko waxee si la public kii lu muy sant na ko sant fii. mais kii du sant. kii du toog. cette personne cette personne là. non cette personne là levée n'assis pas dans le plateau. ok merci beaucoup. il est jamais. kontaan naa ci yéen maa ngi sant tamit sama yaay sama yaay awoka maa ngi sant bu baax sant sama papa bu baax barki Serigne Bamba Fatma. gars dañuy jàppale bu baax waa Malika montagne waa carrière bi ku si mel ni ñoom Zéni ñoom laay ay caat jama gars yëpp maa leen bëggee ay Ibou Diallo Siteu Boy Niang Ounthia bàyyiwuma kenn barki Serigne Bamba Fatma ñu nay xale lañ te bu soo may ñëw fii xale ndaw ñoo topp barki alxuraani karim kon booy mënu ma leen fayal lu dul victoire kon du kii moo may téye kii sama kii maanaam bi may doog a débuté si làmb la nii rek mais kii du mën ak moom sax te bu ma ko jàppee ba daan ko le 20 si lay doog a comprendre kii du mën ak moom merci beaucoup barki Serigne Fallou jërëjëf aja joxante leen loxo nee nañ image waaw taxaw leen ñu jël image bi taxaw leen ñu jël image bi yow boo Malika yi kañ laa lay woo yow kañ woo ba tey Massa euh, kii Boy Flex moom it euh, la waroon a bëreel mais ñëwut ay très rapidement maa ngi lay nuyu waaw Ngom Feles la. Uh-huh. mosu billahi min seytaani rajim waaw ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci yonente bi sant sama ñaari waajur bu baax di nuyu bu baax ñi ma fekk fii yëpp ak maam sax mi ma àndal uh-huh. di leen nuyu bu baax a baax. an sa adversaire. ah laajte naa ko nee na ñëwoon na de mais dem na. daa dem. waaw est que nekkul lim la gis tax. ah mën na nekk. ak état de physique. mën na nekk. Uh-huh. waaw ñu moom saa yi moom li la wax rek. combat yi moom dañ ko respecté bu baax a baax a baax. Ah. moo nekku fi moom dañuy bëgg rek di woo rek ndax loolu loo ses. Ah, ah. ñi jàppale Ngom Frères yëpp di woo Bamba Fall Medina sunu mouvement Teranga moo ñi maire Ngunjaan yëpp mbay joon bàyyiwuma kenn. di woo ñëpp daal waa Medina Fass Gueule Tapée Ngunjaan Thiès bàyyiwuma kenn waa Tangis Touba. fépp fan si kolom nga mu feles nekk rek maa lay woo. Hmm. waaw bi nekk sa ñaata combat. bii mooy sama quatrième combat. sa quatrième combat ñaata victoire. non trois ci ah, kattanu yàlla suñu borom victoire nga ma waaw ok xam nga adversaire bi ngay bëree. non xaw ma ko nag. Ah, ah. waaw soxlawu ma ko sa xam. incha allah uh, mbokk incha allah di ngeen amaat beneen jàkkaarloo. waaw waaw maa ngi woo ñëpp daal di woo xama ku mel ni Ahmadou Idaali Ndiaye maa ngi koy woo bu baax sama grand ji bi moo ñing Mbaye Dione Bamba Fall bàyyiwuma kenn di woo ñoom sama patron Malick ay ñoom ci sama waa ji nekk fii Fass maa ngi leen di woo bu baax am na nga xam ne nag dañoo bëgguma tur seen tur ak ñoom yu ndaay yëpp bàyyiwuma kenn ñoom xaarim Bamba di woo staff Ngom Fales ak mafia Medina bi yëpp bàyyiwuma kenn incha allah maa leen di woo ñëpp ngeen ñëw dooleel ma ñu ñëw terwaaj ci ay seconde dem di nuyu bu baax nag sama course perkat yi ay Ibrahima Mbaye ak ñoom soose yëpp maa leen di bégg bu baax a baax per Tafa Gueye tamit même chose maa leen di bégg bu baax di kontaan ci ñoom ndax tamit mu ñuy teg lu baax lu métti loo xam ne suñu njëriñ la kon kontaan ci ñoom rek laay def di woo ñëpp daal bàyyiwuma kenn tant que moom adversaire bi ñëwul moom wax a neex. Ah, di allah. incha allah naa ñëpp daal. Ok, merci beaucoup.